di di célébrer seen journée fii at at at fépp foo mënta dem ci monde bi donc euh, euh, occasion la pour ñun association des hémophiles ñu ñu vraiment wax ci feebar bi que ñu que ñu diisoo at nit yi fi nekk ci ci problème yi nga xam ne moom la hémophile nekk ñu mën a diisoo tamit at euh, at population yi euh, ñaan bi à que problème yi nga xam moom la am fii en matière d'hémophilie que état bi dimbalu ñu ci bu baax parce que hémophilie yi sonn nañ parent yi sonn nañ et que et il faut que vraiment que ñu xam ni que euh, traitement amul Sénégal et que il faut que état bi quand même mën a mën mën a mën a mën ñu dimbale pour que traitement bi pour mu accessible que mu am Sénégal parce que yaakaar naa ne ay doomu réew mi lañ et que et war nañ war nañ war nañ war nañ accéder ci ci faj mi comme malade yi fi nekk yëpp ci Sénégal donc euh, loolu je crois que moom mooy li nga xamee ni vraiment moom la ñu bëgg a euh, véhiculer moom la ñu bëgg a wax pour que pour que vraiment nit yi dégguñu et que et vraiment ñu ñu waxtaan ci naka la ñuy euh, wàññee écart bi nga xam ne moom la pays yi nga xam ne am nañ traitement beeg yëpp am ak ñun donc écart bi moom bëri na lool parce que am nañ problème mu traitement am nañ problème mu diagnostic am nañ problème mu suivi médical ah donc euh, bëriwul ay ay médecins yu ko xam bëriwul ay structure de santé yu yu ko xam donc euh, hémophilie dafa nekk maladie boo xam ne xamaguñ ko donc yooyu yëpp dafa nekk ay volets yoo xamee ni il faut que nit yi jàppale ñu ci pour que ñu mën cee xeex pour que ñu mën cee gëstu pour que vraiment hémophilie bi nekk feebar boo xam ne suba dinañ ko mën a gérer correctement comme yeneen réew yëpp di gérer seen feebar. doonoon kon Mohamed Yassine ci turu ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee jàngoroy hémophilie ci senegal euh, doon na sakku taxawu gi war ci ñoom ci askan wi rawatina tamit ci kilifa yi dëkk bi kilifa